ah jërë ngeen jëf mbokku internetu Actubuzz ñu amati mbégte ak kontante saa su nekk te rek naa ne kii ma dalal tamit dootuma ko présenté Sénégal du ko présenté tamit réew mi parce que ñëpp xam nañ ko sëñ Cissé dañu fa yéene sekkal ay waxtaan gis nañ li nga xamante ne tey mooy sotti yi nga xamante ne def na ko fii si Actubuzz ah li nga xamante ne li ko dalee di kan bi toujours damay bamtu dinañ ko wax dina ko waxaat tamit mu def ci ay jéego yu am solo mais gis nañ ci li nga xamante ne tey mooy Sénégal ci qualification coupe du monde yi mu nekk ci mondial bi bëri woon na nag ay sëriñ ñi taxawoon doon bàkku naan ñoo yóbbu Sénégal final ak léegi li ñoo si doon def ak léegi léegi mais gis nañ ne sëñ bi démb ba léegi deful benn sotti deful dara daañ nañ gis saa bu Sénégal di football sarax yi ñu def ak liggéey yi nga xamante ne da ko doon def ci nga xamante ne mooy équipe bi demb nag Sénégal am match diggante moom ak di gisuñu sëñ Cissé dégguñu sëñ Cissé depuis boobu ak léegi amul benn réaction bu ñu déggum mooy sëñ Cissé dañ ko laajal nag lan la toogaay bi ak déglu bi lan la woon ginnaaw ba waxee ne fédération Sénégal bu suma ma jotante ak ñoom dinaa jëlal Sénégal incha allah lii di coupe ñu fas yéene waxtaan ak ñoom tamit nag parce que nag Sénégal war na footballaat retour bi Égypte te loolu fii la ci Sénégal dañ koy bàyyi mu nuyoo sëñ Cissé ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu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 yàlla defal ñu fi tawféex ak tey siir saxaaratul daare ni ci barke Cheikhul Khadim noonu leen def di ñaanal waa bitim réew gépp yàlla defal leen jàmm ba suñuy yaay ya fa nekk ak suñuy rakk ak suñuy mag ak suñuy doom ak sunuy maam ya fa nekk di daan seen doole yàlla def leen ñu amee xéewal ak jàmm ak tawféex ba ñibbi seenum réew noonu leen def di ñaanal Ukraine ak Russie yàlla def fa wàcce fa ndox mu sedd yàlla defal leen jàmm defal ñoom ñëpp jàmm suñ doomi réew ya fa nekk ak doomi réew waa dëkk yooyu yëpp yàlla defal leen jàmm ba li nga xam te ji yëkkati ngànnaay yéen def yàlla def ñu tegaat ko si jàmm jàmm njëkk fa jàmm mujj fa ci barke Seexul Xadim te incha allah jàmm dana dana fa am ci lu dul yàgg léegi incha allah. jërëjëf sëñ Cissé gis ngeen li nga xamante ne tey mooy kàddu yi mu yëkkati moom nee naa xam naa ne jàmm gi du Sénégal rek ndeysaan la koy yéen yéen na ko si yeneen réew yi parce que nee na léegi jàmm incha allah dina dellu si diggante Ukraine ak Russie sëñ Cissé loolu ne def ngeen si ay ay ay ay waaw waaw boo xoolee diggante Russie Ukraine moom laa lay wax ci sorte bi jàll man la ku ci ñaan ku nekk da nga ñaan yàlla jàmm am fa ndax boo xoolee réew mu nekk ci war a wax réew mu nekk ci war a tamit moo ci war ñaan ndax réew mu ne mhm. say doomi réew ña fa te say doomi réew dafa leen fa yóbbu mooy daan seenug doole ngir seenug njaboot mm-hmm. te ñaanoo yàlla ñu des ci loolu moo tax jàmm daal lañ ciy ñaan ba tax na tamit am na ñaan yu bari yoo xam doon nañ ko ci digle mm-hmm. dëgg yàlla doon sàkku nit ñi doon ko ci def ak yenn sarax yoo xam ne doon nañ ko defal suñu bopp ngir réew yooyu amaat jàmm te ragal nañ ni mm-hmm. yàggatul dara incha allah dinañ te ngànnaay woote jàmm incha allah sëñ si su ma jógee ci loolu damay ñëw ci li nga xamante ne tey mooy ci masjid poule yi nga xamante ne Sénégal mu ngi koy football ci mondial bi gis nañ diggante démb Sénégal Égypte Égypte daam ñu benn bal ci dara depuis keroog ak léegi ba lii bi jeexee ba léegi Coupe d'Afrique ba mu jeexee ba léegi gisaatuñu taxawaay bi nga xamante ni dina nga ko taxaw ci équipe nationale bi lan la. waaw su ñëbu mhm. daanaka loolu moom ay doomi réew mi lan te man kenn gënuma bëgg sama réew mhm. ndax sama réew rek laay bàkkoo mhm. moo tax ma yàgg di wax ne képp koo xam ne laal nga samam réew rek man ngay laal ndax réew mi laa am fi laa juddoo fi laa yoro rawatina nekk taalibe Sëriñ Tuuba léegi nag loolu moom moo tax da daanaka du ma bañ leen loo xam ne day kiyal sama réew yàlla dafa defal nag Coupe d'Afrique bi daanaka génn gis ngeen sorte yi ci doon def yëpp mm, ñu doon liggéeyal ñenn ci waa fédération bi jëru tudd benn tur mhm. yàlla def ñu daan def sax maxi nag ñu génn wax ni équipe nationale bi bu dee woo woo nannu wala tey jii nii ñi ciy jëflanteel woowaat nannu mhm. incha allah bu neexee yàlla Sénégal dana dem quart de mhm. noonu lañ ko doon def ba yàlla def ñu woo ñuy liggéey ak ñoom mhm. bin waree football final bi ñu génnaat fii nii am naa yaqin ni Sénégal dana jël coupe te yàlla def na loolu coupe ñëw fi wante boo gisee nag qualification yi lu tax kiiwuñu ci nag defuñu ci benn sorte démb ba léegi barki démb sax laa sama téléphone bi message yeeg appel yeeg yëpp sëñ bi dégguñu la nga wax ci match bi est-ce que kon dina baax yëpp laa dégg wante booba tontu tontuma kenn ndax ku ma ci war rek dama naa la may ma tuuti ma eggale mm-hmm. boo ma woowee ba ma xàmmee numéro doo ma kiyaat wante mm-hmm. boo xoolee nag def nañ ci ay kii wante tamit xam nga loxo euh, da ndimbal euh, du benn du benn kii kese du benn loxo kese mm-hmm. ndax man lu toll rek équipe nationale di football ak équipe boo xam ne Égypte la ci njàngat nga gañe ko final lu toll ni final te final ba ba nga koy gañe tamit da mbooloo moo moo boole seeni xol mm-hmm. boole seeni doole ñu àndandoo benn yàlla def ci feex nga gañe ko ci sens boobu mm-hmm. ndax keroog ba ni gañ Égypte nii maxi bi war tëdde démb noonu la war na tëddee 1-0 la war na nekk mm-hmm. far Sadio Mané raté penalty ba léegi nag loolu lu waralan tey jii nii final ba muy sëriñ si ñenn ci sëriñ si doon liggéeyal ñoom ñoo ànd doon benn mbooloo ñun ñëpp ñu xam ne sunum réew mooy wuti sunum réew musta jël Coupe d'Afrique ñu àndandoo xeex loolu yàlla def loolu maam ban ko defee ba am nag ñu am ñu ci doon liggéeyal ñooñu nag danoo waran qualification ñu gën kaa bëggaat buñ jël coupe bi rek wan Sénégal ni jël nañ coupe bi ci ci ay kii bañ a fonk qualification yi te xam ne qualification yi moom ñu ëppal njëriñ mm-hmm. Sénégal lu mu mënta jël amut coupe d'Afrique coupe du monde yëpp mën na kaa jël mm-hmm. wante nag loolu li waralante ji sorte bi defuñu ko muy liggéey noog ñoom wante lan man yëkkati suñ kuréel gi ñaanal équipe nationale bi mm-hmm. wante démb ci ay midi maa ngi ci doon dégganteeg benn waay rek ma ne ko de Sénégal de bu ko Égypte gañut mm-hmm. day niil ak Égypte wante gañ gi laa gën a yaakaar mm-hmm. te bi match bi jeex sa dugal naa audio boobu istati sama istati whatsapp li may wax sama ami whatsapp yi ñu ngi koy gis am na ñu bari ñoo xam woonaan ma avant match bi commencé man leen tey du baax moo tax bi match bi commencé sax istati naa ko man leen Sénégal de tey du baax lii naa istati sama whatsapp ndax xam na ni am na loo xam ne mënutoo ci dara. Mm-hmm. waaw am na loo xam mënut wante li may man a xam muy. Mm-hmm. équipe bi nan ko def comme nin ko defoon ci Coupe d'Afrique bi àndandoo marché doon benn xooli àndandoo doon benn doole ji àndandoo doon benn. borom xéewal yi nekk fii da xam ne tey ji senegal rek lañ bëgg mm-hmm. ñu xool sëriñ su leen doy ñu faj leen ñu fay leen xaalis ñu ñaan ci équipe nationale bi Afrique ak Afrique moom bu dee football wala muy làmb wala muy leen a mystique te boo xoolee maxi démb bi dafa bari mystique trop. Mhm. ba da ngay gis jour yi ni war a dox sax doxuñu da ngay mujj ba doo xàmmeti kenn. fi ne ñu ngi yaakaar ne Sadio Mané nag gàllaaj da kaa jàpp dem gàllaaj jàpp ko dafa fekk ni ñu war a fubalal buñ leen téyee tamit si ay yëfam du dox. du dox loolu la boo xoolee euh, naar yi. Mhm. gis nga Algérie bi ne football ak moom bi ne prime ñu dugal ñu. Mhm. te naari chaque fois dañuy dugal bit boo xam bit bu yéeme la dañ cee topp ci bi jeex. gis nga bin Algérie dugalee un yooyu bit boo bit boobu tamu jaar nii te te kii ni bit boo xam bit bu yéeme mm-hmm. noonu lañ ci topp ba mu jeex mm-hmm. Égypte dem gis nga bitu kiimaan bi mu ñu dugal ñi ngi xëy suba di génne heurso yeeg nangam nangam mm-hmm. wante loolu mënta ñàkk mënta ñàkk dafa fekk ne benn bit la ñu koy njëkkante far ñoom ñu njëkkaa dugal te ban ko dugalee fi ma doon toog di seedaan sax wallaahi alxasim eggalewu ma ko ba ma fay jógee laan leen senegal day ñàkk barke alxuraan eggalewu ma ko sax ndax xaman naa ne Sénégal day ñàkk ndax dama kaa wax ñooñu ñu ciy sikki sàkk ma ñëw nag toog confirmer leen man leen bu leen am sens deuxième bii bi dana dugg. Mm-hmm. waaw loolu la. Mm-hmm. wante daal li ma lay mën a xam. Mm-hmm. mooy ah la ma waxan ci Coupe d'Afrique bi laay waxaat. ñoom fédération bi ñenn ci fédération bi fii laa koy wax bis bu ma woowaatee. incha allah man si Serigne Cissé. bu neexee yàlla. ak mbaaxu yàlla ak mhm. màggu yàlla mhm. ma qualifié Sénégal ci kàttanug yàlla buñ ma woowaatee buñ ma woowaatee laa xam nga Sénégal daanaka looy wax lu nekk nay leer ndax mën ngaa wax lii woowaatun la xale yi dagg ko dugal ko TikTok waaye li ma lay wax daal incha allah bu neexee yàlla ñenn ci fédération bi buñ ma woowaatee ñi ma daan ñi ma doon liggéeyal ci Coupe d'Afrique ma woowaatee ñeneen woowaat ma ci Coupe d'Afrique bi mhm. bu neexee yàlla Égypte bu ñëwee Sénégal Sénégal dina ko dumata dana génn buñ ma woowaatee incha allah bu neexee. match lu si des bëreetu ñetti fan rek a si des diggante Sénégal et surtout match retour bi fii ci biir Sénégal te Sénégal nag bu ñàkkee match boobu mun na toog parce que du demati. dëgg la wante boo xoolee ba ñaari fan daj ci sax Sénégal mën naa gañ football da nga koy jox ñoo xam ni ñoo ko mën ku nekk sa domaine rek nga jox ko mocckat bi bàyyikaak moccam mhm. euh, ki nga xam ne tey jii nii day day ñaan ci wàllum rab bàyyikaak rabam mhm. kii ñaan ci wàllum leneen bàyyikaak leneenam football ba ne suba la yëpp mën naa nekk ba ci jour bi mën naa nekk. Mm-hmm. waaye nag comme tey jii nii sagam da ngay recevoir sa dëkk. Mm-hmm. pour nga jekku sa adversaire lu yomb la. Mm-hmm. ndax bi ne suba la mag si am na yoo xam ne fii nii mën nga kaa def ci stade jam sa réew la di. tey la rek wala ginnaaw suba la am na yoo xam mën nga kaa liggéey ba moomaat sa ndam. stade jam ñaajo bii rek mën nga faa def yoo xam ne tey jii du ay téere du yi dara te waa Égypte bu ñu fi duggee dañuy mel ni dañuy jaxasoo dañuy mel ni buñ buñ waraan a sawar tey dañuy mel ni ku tàyyil seen seen yaram yi la ñuy rocc. Mm-hmm. tey jii nag loolu la wala nga nga defal loo xam ne dañuy taraxiis bu jëlee gilisa tuuti daanu wala nga defal loo xam tey jii da leen a xabtal. Mm-hmm. ba seen yaram day nungoo tàng ba tey jii nii dañuy mel ni ku jëfur nga xam ne tey jii nii am carton rouge du dara ci ñoom. waaw dañuy mel ni ku tàng nga xam ne am carton rouge du dara xabtal arbitre bi. waaw ci ñoom fi ni xabtal bépp ci diggante ñoom ak arbitre bi lay demee nga xam ne lu am dañuy dem di kaas di yuuxu arbitre bu ko defee carton day kii gaañe gaañ yoo xam ne amuñ njariñ gañ nga defee ne carton day am pour nga gañ pour Sénégal gañ Égypte ci retour bi mën na yomb ah. maanaam sénégalais yi ñoo ko dul yombal mën na yomb wallahi alxasi mën na yomb Sénégal ku mënta gañ mhm. wallahi gisuma ko ànd nag ñi jiite équipe bi ñoo ko dul yombal ñooy bàyyi ba jaan romb ñuy dóor watis bi Sénégal nag moo baaxoo chaque jour bu dara jàllee muy door a wax naa ay bu ma yëgan walla wante ale bii mhm. wallahi alxasim li ma doon wax Sénégal mhm. ñun nii lan aller bi retour bi ñu ñëw duma Égypte génn moo ko gënal mhm. waaw ànd fi nit nii nag indi na nit ñi pression ah, jour yi dañuy am pression ñun ñuy seetaane yi dañuy am pression nan war a seetaane am ci bànneex duñ ko amati léegi nag yàlla bu yàlla def sax ñu ñu fu bari Égypte njëkk ñoo dugalaat ba léegi nag mbir mi gën a métteeti wante li ma lay xamal daal mhm. sama kàddu dee mooy sama kàddu tey doomu Sénégal la doomu réew équipe bee ma ñor Sénégal ma ñor. wante la ma waxan ci Coupe d'Afrique ba bu ma Sénégal woowaatee incha allah bu neexee yàlla dinaa qualifier Sénégal. ci digganteem ak Égypte ci retour bi bu ma Sénégal waatee noonu lañ def daal di tàggatoog askan wi di baalu àq ñëpp di wax ne lépp lu fi jub rek yàlla la wante lépp loo xam ne dëng na rek ñun jàmm bu xeebu bii la mhm. di waxaat askan wi leen ab jullit la taalibeb Sëñ Tuubaa juddoo Touba yaroo Touba màgge Touba. Mm-hmm. bokk ci keppaaruk Serigne Touba. Mm-hmm. yàlla def ma nag tarixe yëpp ma bëgg fu ma dem am naa fay soppe. te tarixe yëpp laa jàpp ñu ñëpp doon benn. Mm-hmm. ndax yàlla ne walla xadd karam naa ba ne aadama. maa ngi ñaanal Serigne Mountakha Basir yàlla yàggal ko fi loolu tam wér. noonu laay def di ñaanal tarixa yëpp ndax mënu may commencé te duma leen ñaanal ñoom ñëpp ndax ñooy suñu kilifa bu fi jaam ñoo tax jaam am fi mhm. di ñaanal tarixa tiijaan xaadir laayeen ñaseen ñëpp mhm. yàlla defal leen jaam mhm. noonu laay def di ñaanal Sénégal gii ma nekk sama kàddu di wax ak yéen fii yàlla def fi jàmm yàlla def fi jàmm te jàmm moo fi am incha allah bu neexee yàlla mm-hmm. noonu laay def di ñaana waa bitim réew yàlla may leen jàmm ñoom ñoo xam suñuy waajur ak suñu doom ak suñu mag ak suñu rakk ya fa nekk daan seen doon yàlla dafa leen xéewal ak jàmm ba ñibbis jàmm mm-hmm. noonu lañ def di ñaanal Ukraine ak Russie mm-hmm. yàlla xëpp fa jàmm xëpp fa ndox mu sedd te incha allah bu neex yàlla du yàgg dara yàlla defal leen jàmm diggante Ukraine ak riisi gi ci barke Seexul Xaddim